joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilo jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fallilu yaaro ci mboolem law lu yow Fallilo yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejug mbindeef yi ay gi na mbàkke Cheikh Fallo fam nga jumaa ji xàll yoonu mbàkke sengul daagul dugal tariixu laay alaaji Fallo yaay rasulullaay jam nga fa Makka fam nga ni laay alaaji Fallu yaa juboog li laay am nga ngeen li yàlla hubbu fam nga ngeen li Bàmba hamdulaay sariyatu haqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng bay baa di ab xalifa moom xarnu beeg Tuuba tabax jumaa ji alaaji Fallu mooy xalifa moom yoonu Makka new leen néew moo bi yoonu Makka ak Madina ay million sappee moo bi yoonu Makka ak Madina Alaaji Baara saana diina yaab siyaare Amadul Makkiyu dellu siyaare Amadul Makkiyu dellu siyaare waa Baqiya xabru Tayiba siyaare kër njool Makka xam nga barba Seex Fallu añ na fa sànni jamra fon doj wa dem Arafat dellu umra dem na Safaa dem Matam dalli fa taxaw makaama dem na langale fa Seex Fallu julli jumaa ja naan ca biir Samsam kaaya waa Makkata yaa bari ndam yaa am jaloore ndam ma tiital mu ne su la ngañati suukar ma sa bari jël na ndam la Bamba ni fallu laay fallum yàlla alaaji Mbàkke bu sey ni jaayam Bamba di baayam fallu di jaaram yaa jara way yaa jara joxi daaya yaa jara jaamu yaay borom mi layoy masin ba joona suubu leen dem gaar ba jóg leen taxaw jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Fallilu jóg leen taxaw ni sant Seyxi Fallilu guddeeg bëccëg ñu jublu Seyxi Fallilu yaaro ci mboolem lawlu yow Fallilu yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géeju mbindeef yi ay gi neex na Mbàkke Seex Fallu fam nga jumaa ji xàll yoonu Mbàkke sengul daagul dugal tariixu laay alaaji Fallu yaay rasuulullaay jam nga fa Makka fam nga ni li laay alaaji Fallu yaa juboog li laay am nga nga ni li yàlla hubbu laay fam nga nga ni li Bamba hamdu laay sariyatu aqiiqatul iimaan alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëñ Moodu Busa Jeng sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Modou Bousso Dieng sëriñ Modou bay ba di ab di alaaji moom xarnu beeg Tuuba tabax jumaa ji alaaji Fallu lay mooy xalifa moo bi yoonu Makka naw leen néew fa moo bi yoonu Makka ak Madina xarnu bi naat na ay million sappee na moo bi yoonu Makka ak Madina alhaji baara mbàkke saana diina yaab siyaare amadul makkiyu del siyaare amadul makkiyu del siyaare waa baqiya xabru tayiba siyaare kër njool makka xam barba ci falo añ na fa makka sanni jamra fon doj wa dem arafa delum ra dem na safa dem ma tama dalli fa taxaw makaama dem mi nang langale fa Seex Fallu julli jumaaje nan ca biir caaya waa Makkata yaa bari ndam yaa jaloore ak ndam a tiital mu ne su la yaa di suukar maa moom sa jël na ndam la bambani Fallu laayi Fallum Yàlla ala ci Mbàkke bu soy ni jaayam bamba di baayam فالجنود بعرم يا جروي يا جرج خدايا يا جرج يا بوم ما سين بجونا سوبلن دم غاربا جوغلن تاخاو جوغلن تاخاو ني سانت سيخي فاللو جوغلن تاخاو ني سانت سيخي فاللو guddi bëccëg ñu jublu seyxi fallilu yaara ci mboolem lawlu yow fallilo yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géeju mbindeef yi ay gi neex na Mbàkke Seex Fallu fam nga jumaa ji xàll sengul daagul dugal tariqulaay Alaaji Fallu yaay Rasulullaay dem nga fa Makka xam nga ni li lay Fallu yaa juboog li lay am nga nga ni li yàlla